اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وشفيت سقيمنا وربيت صغيرنا وأطلقت أسيرنا وعافيت مبتلانا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا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 أما بعد فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يختفيه صلى وسلم عليه الله آله وصحبه وكل من طلاه وأوصيكم فيه وبهره بمناسبة ما اختير لكم من الأخلاق والحقائق والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى الخائب وأحسركم فيه وبحده عن فهم ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو إجابه للسعادات فتوبى لمن لا يلتفت إلى خير ربه ملاسع مختير له من منير لبه وويل لمن خاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلاسع ما أخسى وأساء قال الله تبارك وتعالى وما آتيكم الرسول فخذوه وقال تبارك وتعالى فمن يحمل مثقال شرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به رسول عليه بآله وصحبه سلاما مهتسون وللذي همته يرتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جار باتقاه وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني سوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقة تجر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فيه لكل ما لم يتبين لكم كونه صوابا فإنه مما يوجه إلى خيركم الأجر والرضا والصوابا ولا تطلبوا الكرم بخير تقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا الحثة من خير العزيز المحس بجاه عبده النبي رسول الله فإن من أقبلها لله تبارك وتعالى إلى سواه تركوه مع النفس وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قال إليه كل ما كان يتقي إليه من الزميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله عندكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم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 على يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من سلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه الشر الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على من جاد به فيه للمنتقى عليه السلام بالجميع مقتفيه فإن عاث اليوم يوم أكل وشرب وحدق بفضل من زاد بفرق الرق فمن سكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يظفر من كل ما من الخير يستفيه فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى خيركم الضيرة وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان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 cant gu am fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem di feeñal sunu lott ci moom ak sunu doyadi ak sunu tuubal ko ci mbooleem suñuy rëcc rëcc ci pas-pas ci kàddu ci jëf ndax dëgg dëgg suñu diggante moom ci jaamu ko ci dëgg dëgg xaq yi war suñu diggante ak moom ci sant ko lott nañ ci ndax kenn ku nekk ci noonu su bàyyee xel fi suñ borom tàmbaleeg moom ba fi mu doonee mu kàllaf mu toog yor ay gëtam yor ay noppam di digg ak a dox ak a wax dana xam ni li ko suñu borom defal ci ay xéewal mu ni su ko lim bu ko sottantalee dana lott ci sant ko dëgg-dëgg sant ko kon yàlla nanu sama borom dimbalil boppam yeexal nu boppam ba lépp lu nu romb li tàmbalee ci sunu jëmm sunu yëg-yëg muy li ñuy dégg ak li ñuy gis lépp muy li ñuy delloo ci sunu borom subhanahu wa taala ci sunu sàttantal ko bis bii nag di bisub sunna waaye manes na cay jànge lu bari ci li nga xamante ni mi ngi ci sunu kanam gannaaw ba ñu sant yàlla nag mi nga xam ne may na ñu fekke ko at yu bari di ko ñaan ñu fekkewaat ko ci sunu kanam it at yu bari lool te ànd ak wér ak mucc ànd ak it sax ci li mu gërëm bis la bobkat mel na ni jamono yëpp kenn ku nekk ci noonu mi ngi ko doon waajal li tàmbalee ci jëmmam tàmbalee ci njabootam tàmbalee ci këram loolu yi nag am luñ ci war a jànge loo xam ne nii nga xam ne noonu lañ fi dajee te kenn ku ci nekk ba bis bii jub ba nga demee ca marché ba yaa ngay seet soo ko manoon la ngay sol boo teewee fii kenn du la dàqale ak col doon ci mbubb du doon ci mbaxana soo ko manoon it kenn du la gënle am xar kenn du la ko ëpple mooy yeewal sa njaboot soo ko manoon it sa njaboot kenn du leen dàqale luñ sol waaye seen nekkin yépp it day yéwén te bi rekk ko waral loolu yi nag man li ma jox ci sam xel mooy daf may fàttali ëllëg da nga xam ni kenn ku nekk ci nun war na koy waajal war na koy bàyyi xel ni nga bàyyi xel bis bii ba soo ko mënoon kenn du la dàqale mbubb kenn du la gën le am xar sa njaboot it noonu noonu nga war a tàmbalee ci sa jëmm fexe di sellal say pas-pas di sellal say kàddu di sellal say jëf waaye loolee it nag nga yar ci sa njaboot bu bu ngeen àndee ëllëg ngeen taxaw ca bis ba nga xam kenn ku ci nekk la nga wàccaaye su ëllëgee suñu borom dana la ko won te wàccaaye yépp nag li nga pas-pasa woon fii doon ko jëf doon ko wax noona rek noonu nga koy indaalee ndax da gis koo xam ne dana sol yére yu jot sol yére yu rafet kaalaw sol lépp la mu war a sol ñëw ci ñëwin wu teey ca bis penc ba waaye da gis koo xam ni mbubb rek lay am da gis koo xam ni tubéy rek lay am da gis koo xam ni morso bu mu teg ci kanam ak ci gannaawam rek lay am day gis koo xam ni dara du ko wër bu bëyee xar yi topp ci gannaawam di ko ree kon bis bii loolu yi lañu war a fàttali yit it moom lañu war a delloo ba kenn ku nekk ci bàyyi ko xel bu baax ci jëfam ci waxam ci meloom ba bay àgg ca bis boobee ni nga waajale bis bii ba lépp rafet ba lépp sell ba lépp set ba bi nga ci accès sa lépp yëwén nga gis tey bërki démb bi may jógee Touba di dikk nga romb kenn oto yi ku ne mi ngi yàpp a fees dem ku ne fas dem fa ngay du liggéey ñii ngi yàpp ay fauteuil ñii ngi yàpp ay lal ñii ngi yàpp ay matelas lu ne ñu yàpp nga romb suñu bokk séeréer si nekk ci xar yi kenn ko ci nekk di seet ma ko gën a dugg mu di ko wut loolee lépp doo yam ci wutum xam rek waaye ñee ngay wut matt ñee ngay wut kërim mbooleem lu ko war a booleel ba mu am ba mu aw aw yoon ña nga cay sonn ci di ko def nu ko raw fopp nag nañu war a sonne ci xéewal gi nga xamante ni suñu borom jox nañu ko xéewal bu mu doon war nga caa setantal war nga caa xalaat ci sa diggante ak sa borom loo xamante ni dana la mën a jëriñ ëllëg loolu ñu man koo a ëllëg it nag ba kenn ku ci nekk ëllëg koy taxaw ak sa borom bu yóbbaale fa jikko ju rafet sa set wécc ci lépp lu suñu kon su fekkente ni dajale ci bis bi muy bisu feet boo xam ne sunu borom moo ko jagleel te kenn ku nekk tey jii waroon na xool doom ja bi gën a bëgg nga tëru ko war ko ren di war ko gannaaw suñ borom yëmul ca dimbali bi ca loola waaye mu defal la taw feexi nag wottel la ko loo xam ne da nga ko mën a jëfandikoo ci anam bu teey ca nam la juboo suñu borom manu teg bi lii ak diisaayam suñu borom mën war nañ ko sant te cant bi la ca gën a wér gën caa wóor mooy dellu ci moom ci di ko jaamu dellu ci moom ci wéetal ko dellu ci moom ne ci ay ndigalam dellu ci moom teet ay tereem dellu ci moom bëggante ci sunu biir soppante ci sunu biir wóolante ci sunu biir te jëmmi sunu borom rekk tax kenn ku nekk ci noonu bàyyi xel ni sunu am sunu man sunu am sunu sunu am am lépp ci sunu borom la bàyyi ko kon nanu ko delloo ci moom sunu borom subhanahu wa taala ndax kenn ci noonu kat bu setantalee amulul boppam melalul boppam kàttanalul boppam kon li nga xamante ni ñoo ngi koy bëgg di puukarante ci suñu biir kenn ci noonu amut bay wër di puukarewu ci moroomam nañu xam ne suñu borom moo nu amal moo nu melal moo nu kàttanal kenn ku nekk ci noonu it coobaree suñu borom rek mooy dox ci moom kon loolu yi nañ ko maase xam te lépp ñu delloo ko yàlla kenn ko nekk ci noonu it bàyyi xel ni amut kàttan amut man-man amut it am-am yàlla mooy ki am kàttan yàlla mooy ki man day dénkaane rek kenn ku ci nekk nag na bàyyi xel ni yàlla lépp lu mu ko dénk dana xëy jël ko su la dénkee kàttan boo fi yàggee tuuti kàttan gi dana dem ba jeex takk bu dootoo amati dara ci kàttan bu la dénkee man-man man-man bi ci jeex takk ci li jëm kon loolu yi nañu koy bàyyi xel xam ne adduna dara saxu fi adduna it kër la koo xam ne yorut wenn melo waaye jaam bi fi sunu borom indi su doonee borom xel day fexe yore mel wenn melo wenn melo wa mu yore nag mooy melaw ragal yàlla mooy melaw dëgg mooy melaw njub mooy melaw bëgg yàlla mooy melaw wóolu yàlla mooy melaw yaakaar yàlla mooy melaw sopp yàlla mooy melaw jublu yàlla te muy dëgg ci moom loolu su ko jullit bi defee adduna melaw mu mën di indi ko lor ndax adduna dadul kër gu sax doonul kër gu dal kër gu nëx la goo xamante ni lu fi nit man di am ba nga koy ñee ca la mu am ma nga cay wéyaale loo xam ne mënuñu su ko misaal doomu aadama bari waa na loo xamante ni tey suñu borom booleel na ko loo xam ne ba soñoon loola deñ ca am am ba sax deñ moo ko doon gënal kon nag nu xam ne adduna du kër gu saxawaay ni yonent bi daan jàngalee sallallahu alayhi wa sallam dee leen gën a liy des ci liy jeex jullit benn bu nekk ci noonu war na di ko bàyyi xel xam ni fii kenn ci nun soxo bi te kenn ku nekk ci nun fi lañu dañu fi bàyyi ko jëm ci geneen kër goo xamante ni mooy sax ba faww luñ ne la nag day sax ba faw faww yëmu tëg loo xamante ni day jeex mag ñu baax ñi nga xam ne ñi ngi fi woon daan dénkaane dénkaane yu am solo war nañ di ko bàyyi xel bu baax te kenn kuñ ci indi ak dénkaaneem mel na ni ña ca des ñëpp lañu indi seenu dénkaane ñu indi dénkaane Mawlana Cheikhul Khadim rida ilaahi wa rida nabii fi amalin bi charhi mardi ngërëmal yàlla képp ku ko bëgg te di ko sàkku di sàkku ngërëmal rasulillahi salallahu alayhi wa sallama na nga xam ne loolee mënu koo am mukk ci lu dul ngay jëf te sa jëf nga teg ko ci shariha ju ñu gërëm kon ngërëmal yàlla ku ko bëgg te di ko wut bëgg ngërëmal yonent bi di ko bëgg te di ko wut na nga xam ne loolee mëneesu ko am ci lu nga teg sa tànk ci shariha te bañ koo teggi mukk kon Serigne Touba bokk na ci ñi nga xam ne sunu borom daf ko baax xeetu lislaam mu dikkoon ngir yeesalit lislaam waaye nag boo xoolee nag ci jamono bari na ñoo xam ni nañu koy natt mbiram ci ay nit ñu leen di romb te meluñu nañ war a mel ay nit ñu leen di romb te doxuñu nañ war a doxe meloowuñ nañu war a melowoo danañ ci réer lu bari te ñoom it xóotaluñ seenu gëstu it nag ba xam dëgg dëgg jëmm ji fan la tegoon alxuraan ak fan la tegoon ak sunna ak nan la ko doon dunde dana waral nga romb nit ku sàggane ni man ci mbedd mi du dox nu wërta doxe wala muy wax nu wërta waxe nga jàpp ni loola moo di ak murit te fekk nag ak murit mooy koo xam ne mooy julli dëgg buy jëf li lislaam santaane te sellal ko loolu mooy ak murit boo xoolee dëkkam bi mu sanc di Touba ba mu koy sanc loolu rek moo taxoon mu sanc ko fas yéene dundal alxuraan ak sunna motax tax bokk na ci ñaan yim doon ñaan shalhu dahban maskana tibaahi li sunnatin la maskana btidaahi yow sunu borom ma ngi lay ñaan nga def dëkk bi ba faaw muy dëkku top sunna te baña a nekk mukk dëkku top leneen lu sunna leneen lu sunna rek bi daala bokk na ci lim daan waxe khayrul fi'al ma udima wa waqa fi sunnati muhtari haythu ma waqa ngeen gi jëf moy jëf gi nga xamanteni dang ko saxal waye nak nga teg ko ci sunnas ku ñu tànn di du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbir gi jëf mooy li nga saxal te lool yi nga saxal it nga fexe ba mu tege ci sunna bokk na ci li nga xamante ni lu mu doon wax ci jëmmi boppam la it nga xamante ni ku doon laaj sëñ Tuubaa ci gën buum la jàpp wala ci fan la teg tànkam mu ni la mashaqtu bil qur'ani sa iqama li salawaati l xamsi bi istiqaama man dey sama jàppuwaay mooy alquranul karim ci laa fas yéene sax ba fawwu boole ci nag di taxawal julli juróom ci njub gu set wicc gu raxu dara kon nag kenn ku nekk ci nun na bàyyi xel ni ko kii kat képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak moom ak képp koo xamante ni yaa ngi ko bëgg a roy na nga xam ni fa ngay mën a jariñoo ci moom tey ak ëllëg mooy nga jël sa tànk teg ko ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lii ñu wax kat waxi boppam la du wax sëriñ bi ci boppam mas laaj faf waf xalal xayra na ngeen koy firee ñu ne ko waf xaloo na ngeen def alxayra awiwu mu ni ñu koy def ñu ni cell mu ni waf xaloo juróom-ñaari xaraf la alxayra juróom-ñaar juróomi xaraf la juróom-ñaari cër yii lañu wax ni sax léem ci juróomi ponk lislaam yii te bu leen ko ba kon képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak Sëriñ Tuubaa te bëgg dégg dëgg akum jub ak waxi boppam joo xamante ni dara raxu ci ku koy wax dugalu ci xalaatam moo di li mu digle mooy ñu sax ci alquran ak sunna juróomi ponk lislaam yépp ñu bañ cee bàyyi benn te di ko jëfandikoo ni nga xamante ni noonu lañu ko suñu borom subhanahu wa taala sant sëriñ abdul xuddus mbàkke dafa wax ne sëriñ touba ci boppam ëllëg dafa wax ne suñu borom dana ko laaj anani nga andal on no defal ñoom mu ni ko lan ma digaloon day digal naa leen ko gannaaw ba ma ci nekkee lan ma tere woon it tere woon naa leen ko gannaaw ba ma ko wattandikoo kon nag ñun ñëpp nanay wattandiko topp bakkan nanay wattandiko topp bànneex te képp koo xam ni mi ngi lay woyofalal mbiri ëllëg boo ko manee sori day na nga ko sori ma tàmbalee ko ci sama bopp ëllëg day woyofut julli gii day bi muy jub kenn koo xamante ni kër gu man di aju ci kër yi ci réew mi koo xamante ni bàyyi nga ko sëb sëriñ toog ci sa kër rek ne sëriñ bi dana ma indil fii am xarum tabaski gisuma koo xamante ni yaqinam ak yaakaaram dugg na foofu kenn ku ci nekk da ngaa jóg di kërti kërti ba fa séenee amum xar kërti kërti ba fa amu amum mbubb kërti kërti ba fa séenee amul dàll kon nak li ñuy sagale niti diine yi nga xamante ni dañ fee nekkoon nit diine yépp nag laay wax ak ñu baax ñi nekkoon ci réew mi kenn ndax ñoom ñëpp seeni wax genn wax képp la téere boo ci dem ñuy wax mooy alquran ak sunna kon nun ñi topp ci ñoom te di leen roy nañu farlu ci njub nañu farlu ci dëgg nañu farlu ci siraatal mustaqima jamono nag toll na foo xamante ni jëmmi lislaam ji ca ñoom ñëpp ci biir lislaam lañ nekk ñi koy tuddoo bari na ñoom meluñu nañu war a mel ba tax ñuy xëbat lislaam bay teg ay baat yu kenn mënta wax ci derub lislaam loolee lépp nañu ko bàyyi xel ba ci xew-xew yi weesu nga xamante ni dañ koy jëmale ci ku tedd ki de rasulillahi jurul naqarlu jurul mettitlu jurul def lenn loolu mooy baax lu baax lu baax moom ñu nga xamante ni wan nañ ko gannaaw lépp luñ jafe ni suñ ko waxee mu ñaaw ci xel xeli nit ñi ba yàq seen xel ba duñ toppi lu baax loolee danañu ko def loolu moom mooy lisaanoon lu baax waaye suñ borom it moom itamit fa mu nekkoon du fa jóg mukk wa yaballa illa an yutima nuura walaw karihal musrikun walaw karihal kaafiroon yàlla moom leeram fa mbëgg mu àgg fa kenn mënta tee mu àgg fa ki ko weddi bu ko naqaree dana fa àgg ki bokkaale yàlla bu ko naqaree dana fa àgg kon yàlla noonu sa borom bokk dimbali te bokk na taw fee xel bañ mën a nekk ci njub te mën a nekk ci ak dëgg nañuy bëggante nañuy soppante nañuy wóolante nañuy yar njaboot gi ci lislaam kenn ko ci nekk ak jawar sa digganteeg sa njaboot nga bàyyi ko xel ni njaboot yi war a bàyyi xel ak wayjur wayjur yi buñ jàpp ni seen njaboot dara waru leen ci jenn ak demut bàyyi morom ma loolu nañ ko xam nañ jubal te yar njaboot gi ci islam ni suñ borom diglee te kenn ku nekk ci nun nag teewal ci xelam ni fii nu nekk kenn ci nun saxu fi te ku ne ci nun fi dafiy bàyyi ko looy man nekk nay lu jub looy man di def nay lu jub lépp loo xamante ni bëggoo ëllëg boo taxawee sa borom say cër di ko nettali ci kanamu sunu borom na nga koy wattandikoo jëf nanga nga koy wattandikoo wax na nga koy wattandikoo it melawoo adduna it dafa tëradi lépp lu nit man li am sëñ Tuubaa daana dénkaane ne bàkku bala ko kenn def dangay bàyyi bañ woon démbali bis penc ba waaw kuy dund tëddee déggoo diggante dund ak dee rek lu la defee xaj waxuma la ak ëllëg nit amee na lu ne ci biiru dund ñàkk ko nit mel na lu ne ci biiru dund xëy mel neneen nu bokkut ak noona kon nag nañuy bëggante nañuy soppante te kenn bañ a xeeb sa morom ab jullit du xeeb moroomum jullitam ab jullit du añaane mbokkum jullitam ab jullit du yàqal mbokkam jullitam waxuma la sax ab jullit waaye ku dut ab jullit sax war nga koo bëggal sax war nga koo bëggal lu baax war nga koo yéene lu baax ndax waraahi fii kulli xalqin xaq man xalaqa bindeef bu ne war nga caa sàmmante ak suñ borom ma ko bind kon nit ki nay yéene lu baax nay wax lu baax nay jëf lu baax te sax ca gis nga ku la yéene ab safaan sax yéene ko lu baax yow ndax yéene ga nga ko yéene lu baax suñ borom du ko neenal mukk bu ko bu ko namut ci moom dana ko def ci yow dogal ci benen mindeef ci lu yalla andut dedet yalla moy ki nga xamanteni ku ne mo tan la ko soob mu def ko ci yow kon nañu am taw ci suñu digeenti ak suñu borom ndax gis nga suñu borom kat kenn ku nekk fim jaar ak yow ci sa biiru wayjuru wu bi nga doone pep ndox ba bi nga nekkee memur ni nga fa dundé mu sam sa wayjuru wu sam la fofa te fofu lu ne mënon na fay xew sa wayjur manoon naa daanu dara mën na koo dal waaye mu di la sàmm ba génne la foofa nga génne fa mu di la sàmm ngay gone gone nga xam ne lu ne mën na leen a dal ba nga nekk mu kàllafum jëmm war ngaa am yàqin ci ne leneen lu mu nam ci yow benn mbindeef mënu la ko xañ kon nañu am ak gëm nañu am ak wóolu wóolu yàlla ak bëgg yàlla ndax yàlla doo nga noppale boo déggee sëñ Tuubaa ne ku la tegtal yàlla noppal naa la dangay gis kattanu suñu borom gi ni mu dajal lépp dara yëngu ci lu sóobut suñu borom dégg nga dara mun ta dalit ci lu soobul suñu borom kon yëngu ak dal suñu borom rek ko man benn jaam mënulut moromam dara ab jaam su morom su su su manaloon moromum jaamam dara bari na jaam ñoy gis ñuy dox ci kaw suuf na ñu ci biir suuf ndax am na ñooñ bu sañoon duñ gis ñooñe ci kaw suuf te ñu ngi leen di gis waxtu wu ne bu ab jaam manaloon dara am na jaam ñooñ doo gis ñoom ak yokkute mukk ndax am nañu toog ñoo xamante ni bëgguñu ñu yokk lu toll ni dee day wee te fu ñu xëyee seen leen ñu yokk te duñ taman dara kon yàlla mooy jariñe yàlla mooy lore yàlla mooy joxe yàlla mooy xañe kon nañu dellu ci yàlla moom itam nangu koo jaamu te gis nga takki gàllaaj weddi wu ma ko de sangoo saafara weddi wu ma ko de waaye nit juba ko gën a wóor fexe ba sa lépp nga jox ko yàlla dana la ko téyel dana la ko sàmmal dana la ko aaral te kenn du la manal dara lu toll ni dee day we du man ci yow loolu sëñ Tuubaa dafa firi loolu dafa bind ñeenti tomb teg nit ki ci biir di ci digg bi tomb ba ca penk mu ne ko mooy li la yàlla digal tomb bi sa ndeyjoor mu ne la mooy li nga bëgg tomb bi sa càmmoñ mu ne mooy li yàlla tere mooy mooy mooy li nga ragal tomb bi sa gannaaw mooy mu ne mooy mooy li la yàlla euh, tere mu ne tomb bi sa kanam mooy li la mooy li la yàlla digal boo doxee jëm ca bi ci sa ndeyjoor muy li nga bëgg danaan la jurumaa geestoo noo bokk fuñ jëm waaye boo nekkee ci li eh, tomb bi nga ragal muy bi ci sa càmmoñ ne la jurumaa geestoo ndax bokkuñu fuñ jëm tomb bi ci sa gannaaw nag boo ci nekkee muy li yàlla tere boo bëggee gestu li nga bëgg daf lay wax ne naa bul ma gestu bokkunu fuñ jëm waaye li nga ragal nag muy li ci sa càmmoñ danaan la mutumaa gestoo kat noo bokk fuñ jëm kon li gën a wér gaa ñi te gën a wóor mooy sax ci dëgg ak njub bare waa nag koo xamante ni mi ngi ci xat-xat mi ngi ci coona te lim sangu bu la ko waxoon ak lim takk boo ko yanoon ab liir du jóg boo ko yanoon gone gu dóor waxambaane sax léeg-léeg du jóg fu ne dugg na fa loolu def na ko nga gis koo xam loolu lépp def ca dara waaye yaqinam ci yàlla moo ko ci lépp kon nag nañuy fexe di tarbiyatu ruuxiya yar sunu ba àgg ci gis dogal ko suñu borom beeg sañ-sañam bi nga xamante ni lu mu du dog lu ko soobu du am lu ko soob dara mun am foofu lañ war a nekk te bañ faa jóg ndax kat yàlla mooy jariñe yàlla mooy joxe yàlla mooy xañe yàlla mooy lore benn mbindeef bu ko mën ci kaw suuf amul ndax benn mbindeef bu ko yore woon kat dara duuti jag dara duuti sotti ndax suñu borom moo bind doomu aadama mëtut moo tax joxe ak xañ jariñe ak lor loolu suñu borom rek a ko man yàlla na nu yàlla dimbalil boppam kàttan na nu boppam suñu bëggee lépp woyof ci noonu dañuy dund di fàttaliku dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne amul lu gën a mën a jariñ jaam bi ci fàttaliku de kenn ku nekk ci noonu bu toogee ab diir xalaat bis bi ñuy takki tànkam ak loxoom di ko yor ci bàmmeel lu mu jàppoon ci àdduna rek dana ko soof te loolu yi nag du ñàkk mukk te du jaas mukk te ku ne ci noonu da nga xëy dem ci du jaas mukk mukk mukk mukk mukk su ngeen gisee sama waxtaan bari ci day man de amul lu may tàmbali jàpp ni danaa ko yeggal wallaahi la laa amul lu may def lenn lenn lenn lu dul ni dama danaa jàpp ni balay boobu sama néeg bii de bu may génn di tukki su ma koy tëj wallaahi asim damay jàpp ni keneen ak fi ñëw di ko tijji waaye du doon man ab jullit noonu la war a dunde loolu mooy tax nga mën a amee jikko ju rafet adduna dara lu fi jër xëccoo néew fi kenn ku nekk noonu bi mu fi ñëw dara ëndale woo ko fi booy dem dara doo ko yóbbaale kon li fi nekk lépp bu ñu ko bëggee di xëccoo di ci siisante di ci réyante di ci bëggante daraja ba lu ne nga di ko attan ci sa mbokum julit di ko bëgg a yàq ci sa wax di ba àgg ci bëgg koo yàq ci sa jëf ngir añaan loolu dara jëru ko ci kaw suuf ku gëm ni da nga dajeeg yàlla ëllëg loolu war nga koo baxel yàlla nu yàlla dimbalil boppam sàmmal nu boppam aaral nu boppam defal nu nu yore xol yu rafet yoo xamante ni lépp lu julit am danañ ko ko yéene ba mel ni am yàlla nu yàlla dimbalee loola lay tax nag loola man am mooy nu sax ci njub sax ci dëgg sax ci siraatal mustaqima maa ngi fàttali sa bopp liggéey bii nga xamante ni ngi ci muy mbaar mii ci gannaawam ku ne xam na ni fii bi ñuy tàmbali liggéey bi kër sëñ Touba moo fi nekk ak jumaa ji sëñ Touba fu mu mas a nekk jumaa moo gën a yitteel ci lépp ak jàkk moo tax bi tàmbali ñu tàmbalee fii ci ci ci jàkka ji jumaa ji ku ne xam na ne nag xat na moo tax mbaar mii ñu tàmbali ko man nag maa ngi ci liggéey bi na ma ko waxe woon xaaruma ci kenn noonu ci soññi ñëpp na ku ci am looy joxe man xëy na sama nekk fi bëreetut waaye sëñ Cheikh Fall sëñ Seydou Selimi ak ñi nekk ci jumaa ji waxtu wu ne ñoom ñi ngi fi jurut kenn di ma indi man ci sama wetlu bopp benn dërëm ku ci am loo ci def man nga ko def ciment man nga ko def feer man nga ko def xeer soo ko indi fii ñu fekk da nga leen ko da nga leen ko mën a jox loolu moo waral saa su lii noppee nag ba yemu ñu dóoru jubli ci liggéeyu kër sëriñ bi ndax lii moom dafa gën a jàmp lépp fu nit ñi taxaw di julli moo gën a jàmp lépp waaye amu ci lenn luñ ci sàggane bu kenn jàpp ne dañ ciy sàggane lenn wala dañ ci amul benn yitte déedéet lépp ci lañu am yitte waaye lii dafa war a tax ñu tàmbalee fii bi ñu ci jógee fii xat ñu mën a tàmbalee kon noo ngi sant ñëpp di siyaare cheikh seydil muxtaar di ñaan sa borom guddal fanam te may ko wér te yéene am ci l'islam yépp sa borom defal ko ci kattan ak ndam bam àggale ko gën gaa rafete am di ko ñaanal kilifa yi diine ci réew mépp di ko ñaanal julit ñëpp yàlla ñu sa borom may ñu fe teewe ko at yu bare bare bare bare bare te ànd ko wér ak mucc ak xéewal ak sutura su sax dàkk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nasaluka ya allah an tattali'a alayna فترضى صنيعنا وتضاعف مثوبتنا وترفع درجاتنا وتقبل أعمالنا نسألك يا الله أن تباهي بجمعنا جمع الملائكة يا الله ربنا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فرج همومنا نفس كروبنا أقل عثراتنا لا تدع لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين نعوذ بك من البرص والجذام نعوذ بك من السرطان وسائر الأسقام اشف مرضانا اشف مرضانا اللهم ألبسهم لبوس العافية كي يسبحوك كثيرا ويذكروك كثيرا اللهم أطلق أسر المسلمين اللهم رد الغائبين اللهم رد الغائبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا تذر صغيرا ينتظر والدا إلا جمعته به يا رب العالمين